ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع الحمد لله jàngoon nañu axkaam annuun assaakina ak tanwiin ñaata atte ahkaam noonu sakina am ak tanwin ñaata atte hmm? ñeenti atte ñeenti atte bu njëkk waaw bu njëkk bi ak bu ñaareel bi ak bu ñetteel bi ak bu ñeenteel bi sax na njóoba bu njëkk bi bu njëkk bi moo nekk izhaar macha allah soxna yaasin bu ñaareel bi ñaareel bi mooy assimilation eh, eh, wax wax ko ci wax wax ko ni ko Ndiob waxee izhaar bi ci topp. Mhm. izhaar. alwaat idgham. idgham idgham. terminologie il faut ñu leen di jàpp. idgham idgham. Mhm. ñetteel bi Fatou Kiné. إقلاب ah iqlaab iqlaab ñeenteel bi bint ibrahim ñeenteel bi fatima dégguñu la de fekkee da nga mute dal sa xaatuki ni tontul ko comme déggul ñu wala nekku fi ñeenteel bi ah ixfa ixfa masha masha allah id ok idhaar yan xaraf ñooy xarafi idhaar ajaa njooba euh, euh, mooy euh, the third letters The Which is uh, Hamza, mm Waxaat ko nga ne nga ne Hamza. Hamza. uh not a third letter. Uh, um, Ayn. Okay. Ghayn. Uh-huh. Haf. Uh, you, you, you, mean ha? Ha, wow. Mm-hmm. عين غين حمزة حاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء the six letters of إظهار of of of the همز فهاء moo tax chapitre bi moom des ko war a des ko war a mokkal waaw hamzun fa haun thumma aynun muhmalataani thumma gaynun xaau léegi su fekkee ne xaraf yi dañoo topp ci tanwin wala ñu topp ci nun saakina tanwin bi dañ koy jàng mu feeñ wala dañ koy jàng mu nëbbu dañ koy jàng feeñ wala dañ koy jàng mu nëbbu koy jàng mu feeñ bu dee ali bu dee man amana dégg ak nun sakina bu dee hamza ak mm-hmm. tanwin wa jannatin alfaafan waaw wa alfaafan budul budul warsh nag nag danga naan wa jannatin alfaafan bu dee ngay jàng da boole hmm? wa jannatin alfaafan ndax booy lépp la woyofal hmm. ah. boo jàngee bu doon bu jàng warsh man amana da nga naan man amana man amana hmm. ndax warsh am du diisal dafay woyofal yu yuminu mu ne yuminu yuminu bu dee haa man haajara wala min haa wala jurufin haar ci tanwin ji mm-hmm. bu dee ayn an'amta wala min ilmin wala xaqiqun alayya wala ala bu dee haa yanxituuna man xaadda alimun xakimun xayin fa sayum ah déedéet yëpp yëpp a neex yëpp a yomb waaye warsh moom moo gën a woyof ci wàllu hamza ndax Quraysh hamza daanaka dañ koy lekk hamza warsh moo gën a yomb ci hamza am nga yu mi noona bi ngay jàng ci xafs doo ci warsh yu mi noona nga dafa hmm? man amana bu dee warsh nga ne man amana man amana hmm, fa sa yungiduuna xayin gannaaw nun saakina min xillin xaliman gafuran gannaaw tanwin bu dee xa wal munxaniqatu ak waliman xaafa tanwin ba yowma idin xaashaa kan moo yaa ñu waxoon ne ñaareel bi moo doon idgham yan lettre ñooy lettre idgham how many they what are they idgham yarmaluna masha allah ya ra mim laam waaw nuun léegi nag idgham ñaar la am na xaraf mhm. yoo xam ne dañuy am idgham with gunna ak mhm. xaraf yoo xam ne idgham without xunna yéen ñooy yan yudxaamu gis xunna mooy miim nuun waaw yaa yuminu yuminu very good wala wala yan moo ñaari baax na yuminu mm. wala yan moo yuminu mooy dana gëm yan moo dana yokk mm. macha allah daxam without xunna without xunna mooy ra ak Mm-hmm. macha allah ah raa ak laam very good very good joxe woon nañu ay exemple xanaa ñu jaar yu gaaw a gaaw a gaaw hmm? Hmm? ma ne joxe woon nañu waxoon nañu ay e-, exemple idgham with ghunna ak idgham without ghunna waaw eh, ma ma kii ko rek comme dañuy nafar ma dañuy nafar bu njëkk bi nga ne mooy lan yaa man yaqulu man yaqulu wa barqun yaj'aluna bu dee ci nuun min nuur yawma idin naa'ima bu hmm? dee ci miim mimman manaa mathalan ma bu dee waaw min waal ghishaawatun wa lahum waaye nun nag wax na leen la atte boobu pour mu maanaam idgaam boobu ci nuun sakina biñ la wax noonu dafay fekk kat mu nekk ci ñaari baat yu bokkut bu fekkee ci même baat bi la dañ koy feeñal dañ koy feeñal hmm? dañ koy feeñal mhm. hmm? waaw maanaam idgham bi ñu wax la ci nuun wid gunna bu dee ci benn kii la bu dee ci benn illa ida kaana bi kalimatin fala tudgham ka dunya thumma sinwanin tala hmm? dunya sinwaan qinwaan bi ci alxuraan hmm, wala unwaan ngi firi adresse dañ boobaa dañu fe idgham bi xayri gunna ci laam jàngoon nañ ko ak ra ci ak yeneen surat bu dee suratu euh, ah suratu baqara suratul baqara muttaqin bu dee tanwin Kurame Rabbi. ah. waxaat ko. Hudan min rabbihim. Min rabbihim yes. Min rabbihim. ak thamarati rizqa. ak walakin la ya'lamun. Hmm? Suratul Qari'a. Mm-hmm. Ah, Suratul Qari'a yes. ñetteel bi mooy doon iqlaab fatimatu caam faatu told us about iqlaab nga ne what was the letter of iqlaab again na faatu kinne yow yow laa laajoon ñeenteel bi waaye nekkoo fi woon ak ah, bàyyil bi après nga ñëw ci quatrième bi faatu kinne the iqlaab letter Fatu Kidney Cham, are you here? We don't hear you. I don't know if you're talking. Fatu Kidney, we don't hear you. Can you hear me? Yes, now we hear you. Okay, sorry about that. Okay, the Iqlab, mm. mooy the small meme. No, Please. no, no, no, forget about that. That's, that has nothing to do with the ruling. Iqlab doesn't mean that. lan mooy iqlaab lan mooy xarafu iqlaab. thank you yes daana xarafu iqlaab mooy ba that's that's it but léegi nag to explain what iqlaab is mooy the sound of the noon before ba or the tanwin noon sakina before ba the sound of the tanwin before ba turns into mim That, that small meme you see in the Mus'haf, lol, is just a help for you to know that there is iqlab here, but it has nothing to do with the ruling. It, just, it is just a help. Okay. Okay? When you see that meme, it is just mm -hmm. helping you to know that there is iqlab here. But when we ask you what is the iqlab letter, you say ba. And what is iqlab? Is that is the sound of the nun sakina before ba or the sound of tanwin before ba turns into the sound of mim mm-hmm. iqlab mooy nga jàllar the noon sound into mim mm-hmm. because of what because the noon sakina or the tanwin is before a ba letter hmm? mm-hmm. before a ba letter but because dafay am ghunna da ngay gis ne there is there will be a noon sound half it's half and half. idim doo wax idim da nga naan idim idim baasa for example idim baasa you know da ngay da ngay dafay dafay dafay am mim bi sound bi ak the noon sound because there is ghunna hmm? loolu iqlaa bi ok the Fat uh, Ibrahim Fatima Ibrahim the fourth was what? Ikhfa. Ikhfa. What is ikhfa? No, no. Well, four is ikhfa. Then maanaam the four hukum the four rule the fourth ruling mooy ikhfa. And mm-hmm. then we will know we talked about uh, uh, and what we will talk about what are the ikhfa letters and what is ikhfa? What is ikhfa? Ikhfa mooy lan? to conceal, to hide something. Yes, mm. mm. I want Fatima, Ibrahim. I want you to explain mm. what is ikhfa. Ikhfa. Um, maanaam bu nekk nga def ko place am. what does ikhfa mean ikhfa mooy nëbb nëbb yes nëbb wa lan la ñuy nëbb fii xuruuf yes da nuun da nuun lépp lu ñuy wax fii buñ ne izhaar du xuruuf ñooy affecté nuun gi bañ koy feeñal buñ ne idgham xuruuf ñooy affecté nuun gi bañ koy idgham buñ ne iqlaab xuruuf yi ñooy affecté nuun gi bañ koy jàllar bi buñ ne ixfa it ñooy affecté nuun gi donc feeñal gi nuun gi la la ñuy feeñal ndax lettre yim jiitu idgham gi gi la ñuy idgham ndax lettre yim jiitu léegi nga iqlaab nuun gi la ñuy iqlaab moom ndax lettre bi mu jiitu ixfa tamit nuun gi la ñuy nëbb ndax yi mu jiitu donc lettre yi the ruling does do not apply on the letter but the ruling applies on the noon because of these letters the letters. Uh, these are the letters who cause the noon to hide to be hidden to not be pronounced mm. okay léegi how many letters are there the letter of ikhfa yes uh-huh. bismillah Hod. mhm chain of sin, death, or blood, pa, ta, dot, zor. Okay. صف ذا الثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما lettre bu njëkk ci baat bu nekk ci fukki léegi nag su fekkee ne nuun saakina jiitu na benn ci lettre yi wala tanwin jiitu na lenn ci lettre yi nuun bi dañ koy nëbbu waaye nëbbu ko it xaaf la ndax dafay am xun na xaafen xaaf la dafay am xun na par exemple bu dee ci saat bi an saddukum doo wax an saddukum waaye doo wax doo ko nëbbu tamit bam jeex an saddukum anil masjidil haram mhm. yansurukum yansurkumullah ريحا صرصرا waxaat ko non non loolu yaa ngi maa ngi ci zaal bi maa ngi ci zaal bi yow loolu loolu zaala zaal bi min zakarin ak munzirun wala siraan zalika ñetteel bi thaa min samaratin ak mansuuran jamian summa kaaf man kaana yankusuuna aadan kafaru jiim an jaakum wala in jaakum fa anjaynaahu man shaa'a yunshi'u alimun shara'a qaaf wala in qutiltum munqalibuna shay'in qadir shay'in mu ngoog waaw rizqan qaalu daal qinwaanun daaniya qinwaanun daaniya ta wa in taifataani yantiquuna qawman taagiina ah. zaay fa in zalaltum wa anzalna yowma idin zurqa fa wa in faatakum fanfiru umyun fahum ta min taxtiha dafa mel ni ñun mooy waa allah ñu julli yàggale dañ ma yedd bu ñëwaatee duñ yàgg incha allah. alhamdulilah ñu yàggali ñu ngi doon joxe misaalu misal ci xuruful ixfa hmm, xuruful ixfa muy dara meaning dara meaning fifteen letters we were up zay fa in ak wa anzalna yawma idhin zurqa fa wa in fatakum fanfiru umyun fahum ta min tahtiha ah, yantahu jannatin tajri mhm. daad bale mooy taabi daad fa in dalaltum fa in yanzuruna ah walakin zalamu walakin zalamu yes at qawmin zalamu very good zillan very good very good very good kan xanaa ok axkaam ñu yokk ci axkaamu noon wal miim al mushaddadatayn waxunna miiman thumma nuunan shuddida wa sammi kullan xarfa gunnatin bada ana sama translator bi wasa translator bismillah What does it say here? And apply gunna to the letter mim, then the noon wherever it has a shadd, and name each of them a letter of gunna that has appeared. Yes, that mm, na daf koy mottalee wooyu rek waaye dafa bëgg a wax ne miim ak noon ay xarafu shadda lañ ay waaye ay xarafe xunna lañu badaa bi tamit mën na firi ne bi dafa war a feeñ maanaam eh, nuun bu fekkee ne nuun naturellement xarfu xunna la la miim ma ma gis nga na xunna bi mi ngi fi boo koy tudd fokk nga sound of the nose come wante nag buñ leen chaddee nag danga war a feeñal seen runnation hmm? danga koy dafay fës quoi da ngay fësal runna bi ci bu fekkee dañ leen a danga chadd miim bi dafa am chadd wala nuun bi dafa am dafa am shadda moo tax ma le apply ghunna to the letter mim and nun whenever it has a shadda hmm? whenever they have shadda Euh, exemple nuun bu am shadda kan moom woon jox exemple nuun bu am shadda waaw ci alquran ah nuun bu am shadda waaw na euh, wa annahum gis nga gis nga ni nga feeñalee ki bi wa annahum wala sax ci saar bi nga xam ne moo mujj ci alxuraan ñaari baat yi ci mujj minal jinnati wannaasi minal jinnati wannaasi minal jinnati wannaas hmm? min nadhir hmm? wama kunna wama kunna very good naaw miim bu am miim bu am shadda thumma lamma lahum min allah hmm? moom hmm. maanaam ak miim daal xun na dafa dafa taxook ñoom moo xam ñu maas leen wala ñu sukkoon leen wala ñu idoo am leen léegi nag suñ ko chaddee nag nee na dafa am xunna zaahira xunna gu feeñ daf lay bàyyiloo xel ci loolu xunna bi nekk ci miim buñ ko chaddee ak bi nekk ci nun duñ ko duñ ko chaddee wa xunna miiman thumma nuunan shuddida wa sammi kullan xarfa xunnatin bada foofu jeex na li ci topp mooy axkaamul mim ah as-saakina the rules of mim saakina ah, xaaral nag léegi yéen sax de leen liir Adja Ndioba bi ma euh, waaw wal wal wal miimu in in in ok foo ma ubbi ko. in inta intas intaskun. Mhm. intaskun. Mhm. taji. Mhm. taji. Eh, qab non qan. qabla non non qab qabla qablal. qab eh. qablal qablal qablal alifin mhm. alifin alifin laa alifin la lay layi layin mhm. ah, layin latin mhm. li xijaa. li dil xijaa li dil xijaa. Ajaa Fatick ne translation. Ajaa Fatick ne Fatick ne. And when the unvoweled appears before the letters of the alphabet. with the exception of the soft IDs for the processor of intellect. mm the processor of intellect daf la ko wax rek pour nga maanaam pour ko am xel pour daf daf ko mottale woy wi en mm-hmm. mm-hmm. bu unvoweled meme the letters of the alphabet with exception of the septal alif for the possessor of the intellect maanaam loolu miim su suñ ko sukkoonee te mu jiitu benn lettre ci leeter alphabet ba mu des alif ba mu des soft alif parce que soft alif miim du bu sukkoon du ko jiitu soft alif comme par exemple wadduha xam nga alif alifu wadduha ak alifu saja ak alifu muntaqa mustafa hmm? boo koy bind nii ci bindin bi dafay niru yaa mais du yaa alif la hmm? li li li koy li mooy yaa yàlla boo xam ne du du am tomb ñaari tomb yu ci suuf du am ñaari doot yi hmm? maanaam alif softu alif miim bu miim du ko jiitu di am sukkoon miim bu ko jiitu rek ndax alif dafay xëcc lim fataa lay xëcc kom fataa lay xëcc li koy jiitu mënul nekk kii mënul nekk mënul am sukkoon lim bugg wax rek mooy atey miim bu am sukkoon su jiitoo benn lettre ci euh, alphabet lettre si ba mu des alif la yi loolu la la wax ne lan mooy atte mu ne ahkaamuha fatu fatima bint ibrahim axkaamuha axkaamuha salaasatun liman tabat ixfaaun wa idhaarun faqat ok léegi nag soo koy jàng jànginu wéy boobaa fii nag ngay gis xam jànginu warsh ak xafsu gis fii boo koy jàng jànginu wéy boo ne ixfaaun idgaamun wa idhaarun faqat ni nga ko jàngee na waaye bu dee woy da nga naan ixfaun idgaamun wa idhaarun faqat boo ko deful rek woy wi dagg woy wi damm seetlu liman dabat ixfaun idgaamun wa idhaarun faqat okay Fatima the rules are three for the one who strives for precision Ikhfa mhm. mooy miim su amee sukkoon leetar ba ca topp maanaam li maanaam lan mooy lan miim bu am sukkoon jiitu benn leetar ci leetar alphabet yi dana am lettre yoo xam ne su leen miim bu amee sukkoon jiitoo miim ba dañ koy nëbb muy ixfa yaa ngi dégg de ñaareel ba dana am lettre yoo xam ne su leen mim bu am sukkoon jiitoo mim ba dañ koy idgaam ca lettre booba ñetteel ba dana am lettre yoo xam ne su leen mim bu amee sukkoon jiitoo mim ba dañ koy feeñal maanaam lettre yi duñ ko affecté maanaam lettre yi nga xam ne buñ ne ixfa toujours lettre yi ñooy affecté la ñu wax ne moom la ñuy nëbbu bu dee mim la fi mim bo am sukkoon la liñ doon jàng ci leçon bële moo doon dan la ak lan la lettre bi doon lettre yi doon nëbb noon noonu saakina noon saakina wala tanwir léegi nag miim saakina la ñuy wax miim saakina dana am lettre yoo xam ne suñ toppee ci moom miim saakina bi dañ koy nëbb du feeñ miim saakina dana am lettre yoo xam ne suñ toppee ci moom miim saakina bi dañ koy seeyal ci lettre yooyu mim sakina dana am lettre yoo xam ne suñ toppee ci moom mim sakina bi dafay feeñ lettre duñ ko affecté hmm? loolu la wax ne wa idhaarun faqat ok fal awwalu al ixfaau inda al baa'i wa sammihi shafwiya lil quraa'i Fatima, in the first. And the first rule of min sakina is ikhfa in the case of ba and name it this ikhfa. Hmm? Labial in accordance no, no, no, no, the first rule of means. okay go ahead and the first uh-huh, go ahead. Mm-hmm. rule of mean sakina mm-hmm. is ikhfa in the case of ba mm-hmm. and name it this ikhfa mm-hmm. labial in accordance to the fora. yes maanaam name it labial maanaam dafa la it bi rek la wax ne mooy ixfa maanaam ixfa bi mooy ixfa shafawi la wax ixfa shafawi ah nëbbu goo ne nëbbug tuñ la hmm? wasammihi shaf chafawiya lañ war a bind waaye boone ne chafawiya woy dafay damm moo tax mu mu musukoon faage wa sammihi chafawiya lil lil xuraay hmm? maanaam miim bu fekkee ne dañ koo sukkoon lettre ba ca topp di baa la miim ba dañ koy nëbbu ànd ak yaa ngi dégg de miim ba dañ koy nëbbu ànd ànd ak na mu ne loolu nag mooy ixfa shafawi lu tax ndax ñoom ñaar ñëpp ci tuñ la ñuy génne xam nga miim xarafu tuñ la baas xarafu tuñ la hmm? moo tax ixfa shafawi la hmm? ci ñaari tuñ la ñuy génne kan moomu mën a jox misaalu miim saakina baa topp ci miim saakina baa topp ci wa man yactasim billah ha wa man yactasim hadiya doo wax ilayhim bi hadiya doo wax gi waaye comme da ngay ah, da nga koy gunna wa man yactasim na bugg a ànd ak nosol fa bashirhum bi azabin alim yes fa bashirhum bi azab bi azab bi azabin alim macha allah hmm? dégg nga am na ñoo xam ne dañ koy feeñal am ñu koy idgaam ko àndul ak xunna waaye ñaari wax yooyu jànguñu jànguñu leen ci jànginu yi ñuy jàngi alquran moo tax ñu wax yu xarib lañ leen di tuddee Ah, li mooy ixfa ash-shafawi maanaam miim bu ca baa toppee miim ba dañ koy nëbbu ànd ak xunna wa man billah ilayhim bi hadiya hmm? kon atte bu njëkk bi mooy lan ixfa ñaareelu atte bi wa thaani bi mithliha ata wa idgaaman sagiran ya fata translation And the second rule is idgham, which is equivalent, meaning another name and name it minor idgham or suggested. Mm-hmm. maanaam ñaareelu atte miim saakina mooy idgham. Hmm? with with its what lan la wax fii. equivalent. lan mooy equivalent mim. dendandool. no. mim. noon. no mim sakina. <laughs> yes thank you Yacine. mim mim mim mooy équivalent am maanaam mim su mim ni moom toppee ci moom la la bëgg a wax hmm? bi misliha Hmm? équivalent miim mooy miim seetlu nga ko hmm? équivalent miim mooy miim hmm? dégg nga Fatou equivalent of meme is meme mooy meme voilà lan la la bëgg a wax fi mooy meme su fekkee ne dafa am sukkoon lettre ba ñëw gannaaw miim na di miim ni moom lan ngay def mu ne dangay ngay idgham miim bu am sukkoon bi ci ñaareelu miim bi ànd ak xunna ah koy waaw ndax euh, da koy idgham ci ñaareelu miim bi tuddul fi sax xunna waaye eh, idgham bu ndaw la nee na maanaam doo doo doo doo doo taral idgham bi ah kam mooma kam mooma mën a par exemple maanaam ñaari xaraf la foo fekkee ñaari xaraf yoo xam ne dañoo niroo melo niroo maxraj ñoo niroo sifa niroo maxraj toujours bu njëkk bi dañ koy idgham dañ koy seyal ci bu ñaareel bi loolay idgham saghir hmm? oh, oh, Uh, mimma yankuru. mimma very good mimma. waaye waaye waaye ah. Mm, waaye foofu. min waraihim muhit boobu gën a baax sax parce que mimma dala mim mim mushaddada la. yaa ngi dégg mu waraihim muhit ak walakum ma kasabtum waaye bale it baax na euh, bi nga wax noon fa Fatima baax na tamit par exemple am nañ am may am may am ma parce que mim kii la hmm? laha ma kasabat walakum ma kasabtum ma kasabtum mim bu njëkk bi da koy idgham ci kii bi waaye nag nee na bu ndaw la maanaam idgham saghir ah ñetti atte la waxoon ñaata des ñaata moo des benn ok kon ñu dem ci benn bi wa thaalithu al idhaaru fi al baqiya min ahrufin wa sammiha shafwiya And the third rule is idhar in the idhar remaining The idhar, the idhar. Mm-hmm. the third rule is izhar in the remaining letters and name it des. 26 very good masha allah 26 because am nga ba ak lan ak miim mu des 26 letters léegi nee na ñetteelu atte bi mooy feeñal mooy miim sàkkina dañ koy feeñal su toppee ci lettres yi nga xam ne ñooy lettres feeñal yan ñooy lettres feeñal fii letter feeñal feeña when it comes to mim sakina mooy the remaining letters of the alphabet li des ci lettre alphabet yëpp moo tax dinga nga dégg lettre feeñal xam nga lettre feeñal ci nuun sakina juróom benn lañ waaye hmm. lettre feeñal ci mim sakina nag it's the maanaam lettre yi nga xam ne ni ñoo des ci alphabet bi yëpp bu ci miim saakina jiitu du affecté miim saakina ba miim saakina ba dafay feeñ hmm? par exemple an'amta ta boobu mënta du affecté miim bi ci an'amta tumsuuna miim bi dafay feeñ tumsuuna lakum inda lakum inda baari'ikum baari'ikum fataaba dégg nga hmm? inda baari'ikum fataaba hmm? mu ne izhaar bi nag dañ koy tuddee izhaar shafawi izhaar shafawi moom moo mu ne seemit wa sammiha shafwiya neemit lay hmm? kon miim am na ñetti atte su fekkee dañ ko sukkoon ate bu njëkk bi mooy ah ate bu njëkk bi ixfa ixfa ate ñaareel bi idgham idgham ate ñetteel bi izhar very good ñu ngi nëbbu miim bi su fekkee miim bi miim sàkkina bi baal a jiitu nga de dañ koy nëbbu ànd ak xunna ñu idgaam miim bi su fekkee miim sàkkina bi miim ni moom moo topp ci moom waaye idgaam bu ndaw lañ koy idgaam wala ñu feeñal miim bi su fekkee ne xarfu izhaar yi ñoo topp ci moom te mooy the remaining letters mu ne waxdar la daa waawin wafa an taxtafi li qurbiha walitixaadi faarifi waxdar lada waawin wafa an taxtafi li qurbiha walitixaadin faarifi lu muy firi particularly Be careful with making it God in the case of wow, God in particular due to his nearness and concordance. So how this take heed. Okay, be careful wahdhar wattul of making ikhfa in the case of wow and fa in particular. Do what? liqurbiha due to its nearness. Wal ittihadin in accordance. faarifi so know this take heed bàyyi ci xel wattul nag wattul lan ngay wattu an taxtafi ba miim saakina bi na bëtu hmm? fan mu ne la daa su fekkee ne waaw dafa topp ci moom wa faa in la waroon wax waaye faa du xaj mu ne wa faa ndax woy wee tax wala fa topp ci moom lu tax le li qurbiha ndax jege gu ñu jege woo wala ittihaadin ak bennoo benno ñu bennoo faarifi xamal loolu faarifi bàyyi ci xel faarif la waaye woy wee tax mu ne faarifi dégg nga de maanaam na nga moytu nëbbu miim saakina su fekkee ne dafa ñëw right before waaw wala mu ñëw right before faa maanaam lu tax li qurbihaa min alfaa'i maxrajan wa littihaadihaa maa alwaawi fi lmaxraji dégg ji yaa ngi bëgg a gudd de maanaam li qurbiha gi faa moom littihaadin waaw ko moom ah, mel ni leerul de due to its nearness faa moom due to its accordance waaw moom maanaam miim dafa jegewook fa fu ñuy génnee bokkak ak waaw fi ñuy génne miim dafa jegek fa maxraj bokk ak waaw maxraj seetlu nga ko mu ne looloo tax comme dañoo dañoo jege ñoom seen waay xam nga ñoom ñëpp lips letters lañ leen di tuddee mm-hmm. mais xam nga faa boo koy wax du Lipsi rek moo koy wax waaye waaw nag Lipsi rek a koy wax seetlu nga faa benn tuñ bee koy wax ak bëñi kaw yi pa ce pas mm-hmm. am déet faa benn tuñ bi moo koy wax ak bëñu kaw yi mm-hmm. moo tax kon ah. dafa jegewoo max maxraj ak miim waaye léegi waaw nag lan mooy wax waaw du ñaari du ñaari lettre ñaar du ñaari tuñ miim lu koy wax du ñaari tuñ mu ne kon nag na bàyyi xel ndax miim ak waaw benn maxraj lañu am mm-hmm. comme benn maxraj lañu am na nga nëbbu miim gi parce que waaw ci topp dafay dafay dafay dafay yomb boo ci bàyyiwul xel rek di nga bañ a di nga di nga di nga sotti miim gi doo ko liir li nga ko war a liire pourquoi parce que mm-hmm. lettre bi sës ci moom dafa bokk ak moom maxraj bu dee faa tamit moo topp ci moom dafa jegewoo moom maxraj maanaam bi ngay jàng ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum boo romb boo rek alayhim bi doo miim miim sukkoon boobu doo ko doo ko jàng ndax waaw bi ndax miim sukkoon ak waaw boobu benn lañ maxraj alayhim wala hum maanaam alayhim wala hum na nga bàyyi xel ci miim bi balaa nga yege ci waaw bi boo ko moytoo da nga ne alayhim walaahum di nga bañ a li di nga sote miim bi te doo ko hmm? ak fi nga waxee wahum fiiha boo moytoo da nga ne wahum fiiha duñ xam ndax miim nga liir wala lan nga liir ndax dafa jegewoo ak fa maxraj seetlu nga ko wahum fiiha xaaliduuna wahum fiiha hmm? wahum fiiha dafa bëgg nga bàyyi xel ne miim bi eh, prononcé nga ko ni ko war a prononcé mhm. lu tax parce que mën nga ko sauté wala nga mal prononcé ko te doo ko yëg lu tax mim sakina bi waaw bi ci topp dafa bokk ak moom même maxraj ji faa bi ci topp dafa jege ak moom maxraj rek lay firi kat moom lay ne waxdar wattul la daa waawin fa waaw wa faa ak faa an taxta fii ba miin bi nëbbu lu tax li qurbiha ngir jege gi mu jege faa wal ittihaadin ak benno gi mu bennoog waaw maxraj faarif xamal loolu leer na léegi xanaa mhm. ah léegi tey ñu mën a wàcc de am nañ am dañ maa yedda <laughs> waxoon bayt bi ñu topp <laughs> ok so fi xukmu laami àlla wa laamil fi'li loolu mën nañ koo jàng bii di ñëw ndax dafay gudd hmm? loolu dafay gudd hmm? lu am solo la waaw lu am solo la ati yi lu am solo la waaw mm-hmm. ndax yu ci bëri mën nga mën nga mën nga mën nga di jàng te doo ci bàyyi xel téere bu am solo la tuhfatul atfal tuhfatul hmm. atfal waaw maanaam dafa jàpp ne sax balaa nit di màgg war na ko jàng moo tax mu tuddee ko kado xale yi <laughs> waaw seetal la ko tuddee ñun ñëpp ñu mujj nekk ay xale xale <laughs> xale ci <laughs> ah, mu ngoog macha allah macha allah waaye mën na mën na mën na kii ku leen mën a mokkal nga mokkal leen ku leen mënta mokkal nga fexe miin leen rek waaw ah, fexe leen rek parce que daf lay eh, man xafi man dañuy wax ne man xafida al mutuun xaaza al funuun ah, man xafida al mutuun xaaza ku mokkal matn yi làq fànn ah, lii nag matn la maanaam téere la boo xam ne li essentiel ci tajwid la la booleel tënkal la ko Can you scroll down? Scroll down. loolu moo tax waaw mi ngi ñëw xam naa ne dafay search fii la wala bi wi bi. jaaraama nii la. Mhm. ko defee ñu bàyyi ci xel na yàlla yombal yépp yàlla yombal yëpp na yàlla yombal yëpp. yu baax yi wax suñu mbokk moom yëpp ñun ñëpp xam naa ne moo moo ne ci yéen yàlla nañu ko yàlla gën a yàlla nañu ci yàlla ah, jox cër ya gën a mag moom yàlla xaare ko aljanna waaye yéen nag yéen nag ngeen gudd fan yéen moom da ngeen di gudd fan bu leen dee mukk nag yàlla ngeen dund yàlla ngeen dund fukk yu tàmbali tey ànd ak suñu mbokk ya ca ya ca suñu mbokk ñu ñaanal leen yàlla gën leen a taxaw ndax métti na torop métti na torop torop torop te ñuy nekk ñuy dund ci àdduna nafeq bu nga xam ni te jii fi mu ne Occident booy jàpp seen chaîne da ngay gis ñu ne def nañ ñoom seeni investigation yuy wane ne uh-huh. missile yi ci ci ci ci <laughs> la jógee uh-huh. xam nga eh, ci la alkande yam waaw waaw yam waaw mag buy wax lu dul dëgg lu dul dëgg di wax lu dul dëgg boobu bu jëlee bu jëlee micro xale bi gën a tuuti xam ne li muy wax du dëgg seen président bi rawati moom ba mu demee di di wax danga nga gis mu yore benn benn genre écran wala benn genre téléphone. di liir ma ne moom li muy wax sax bu ñu ko wanoon bu ñu ko wanoon ñu liir ko mu ci lay gën a leer. mu <laughs> ko defee ñu xool ci suuf kan a tamit. waaw ndax liñ ko wax loo rek la wax. Ah, liñ ko wax loo rek la wax àdduna yal na yàlla jàppale ñu yal na yàlla jàppale yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla alak seen i noonu dina mës a jeex ci àdduna kay dana jeex yu yu gën bi amoon na fi oh. waaw yu gën a métti amoon na fi mais li xew mooy àdduna dafa am nu ko yàlla bindee. Mhm. waaye mbiru Palestine gënoon na fee métti. ci croix jamono yi ñuy tuddee li mhm. ci la the crusade. boobu la mhm. boobu la gënoon métti. Ah boobu la gënoon métti. te crusade jël na ñaar téeméeri at ak nangam. ba yàlla indi ku mel ni Salahuddin al Ayyubi mm-hmm. waaw yàlla jeexale ah. dama dégg benn xadis bu ma doon euh, déglu ñu naan yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. dafa waxoon mm-hmm. Palestine dañuy xeex ñii rek duñu duñu a gañe affaire Israël du leen mës gañe ñoom dañuy défendre euh, Palestine ba yomal xiyaam ba bés déedéet loolu jotewul ak Israël dara non non naanaam xadis bi wér na waaye niñ la ko firilee moo wérut ah ok maanaam yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne daf aw maanaam eh, laa tazaalu taifatun min ummati ala diina zaahirina li aduwihim qahirina laa yadurruhum man xaalafahum illaa maa asaabahum min lawa xataa yaatiyahum amrullahi wa hum kadalik qaaluu yaa rasulallahi wa ayna hum qaala bi beytil maqdisi wa aknaa fi beytil maqdisi maanaam xadis ji ci gàttal li muy firi rek mooy xeet wi ak lu ñu lompañ lompañ luñu ñu deltu deltu ginnaaw am na kuréel goo xam ne du ñu dëñ mukk di taxawu diine duñu dëñ mukk di not seeni noon képp ku wuteeg ñoom it doo leen mën a lor dara loolu lañuy ci la ñuy nekk ba maanaam ñoom dañuy taxawu diine ba mbirum yàlla di yegsi ñu ne ko ñoo ñooy ñan ak fuñ nekk mu ni ña nga ca baytul maqdis ak ca wàlli baytul maqdis maanaam ni yonent bi tuddee noonu wax tudd baytul maqdis tudd na ko tudd yeneen barab waaye loolu ça n'a ak Israël ndax Israël amul am amul ba yonent di ko tudd Israël lu ñu créé la mille neuf cent quarante sept oni tudd ko ñoom ñu déclaré ne am nañ dëkk mille neuf cent quarante huit waaye dëkk bi Palestine la tudd d'accord waaw mm. Palestine ñoom ay occupant lañu yal na yàlla gaawal loolu yal na yàlla alak leen alak képp ku leen di jàppale waaw yàlla dimbale Palestine ñe ce ñe faatu yàlla yërëm leen dëggal seen shahadatu ñe ca gaañu mu faj feebar mu yëkkati leen mm. waaye ah, ki ki ak moom feeg feeg feeg ko rek ñàkkoo ko mhm. waaye boo ko bàyyee rek ñàkk nga ko alhamdulilah lii nag yeey na yee na damir wala conscience góor yi ci àdduna yëpp mhm. Mhm. ndax Occident li ñuy say saay saay saay am na ay gor ci seen biir yoo xam ne ñuy taxaw di dénoncer li xew waaw islamique bi àdduna bi yëpp ñu ngi def ay ñu ngi ñu protester contre li xew Mhm. ba ci juif yu nekk fii ci New York waaw parce ñu bëri ci ñoom ñoo dem ci buntu ki jiite démocrate yi buntu këram fees fa dell di protester li xew mhm. euh, Palestine lu yàlla jeexal mu jeexee nag yàlla jeexal barakatil quraanil ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع